salaamaaleykum mbokki internet ak téléspectateur yu TMS TV dalet leen ak jàmm ci seen émission invité de la rédaction invité de la rédaction nag laataa ñu ci jubu dañuy daal di nuyu ki nga xamante ni mooy kilifa kër gi di alaaji Thierno Moule Sow di ko jox yéeguwaayam tey nag ñu daal di dalal ki nga xamante ñi nga xamante ni moom mooy euh, sebe waa CBAO ci fàttali nag CBAO ñoo ko samp ci at ci weeru Euh, décembre yem wala 21 décembre ci atum 1853 mu nekk li nga xamante ni banque bu njëkk ci Sénégal banque boo xamante ni sax moo njëkk ci Afrique de l'Ouest mais jamono ji nag dañoo dégg gis ne dafa am ay problème yu fa daal am njëkk woon nañu wax ay grève waaye gis nañ ba tey kër googu seddul moo tax tey ñu daal di dalal ki nga xamante ni moom mooy Pape Tounkara nekk secrétaire général euh, bu syndicat Pape ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. Euh, nuyul waa ñu ngi leen di di leen ziar yéen ñëpp ku si nekk sa tur sa jëmm di ci jiital euh, borom kër gi xam ne suñu nijaay la muy euh, El Hadj Thierno Moule Sow ñu koy ziar bu baax di ko jox euh, yéegukaayam di kontaan lool ci invitation bi fas leeral rek mbir mi. Mhm. boobu dañu jëkk a gis ne yéen jamono ji kër googu seddul benn yoon njëkkoon ngeen def conférence de presse ba tey yéen ngi sàkkuwaat yeneen grève lan moo ënd li nga xamante ni am na ci CBAO. Euh, dëgg la waaye même conférence de presse yooyu noonu ci li ko jiitu. Mm-hmm. Euh, defoon nañ fi te sooy xool ñu tàmbali au mois de décembre. Mm-hmm. mois de décembre noonu li taxoon suñ suñu assemblée générale bu jiitu. Mm-hmm. li ko waraloon mooy dañoo amoon benn secré benn direction général boo xamante ne dañ ko doon tegal problème yi nga xamante moo nekk ci banque bi. di def li yoon wax di ko jébal ay lettres. Euh, dugal suñ demande d'audience nanguwu ñoo tontu nanguwu ñoo faale. loolu waraloon ñu dem ci mbedd bi hmm. te loolu li ko waral mooy dañoo toog saytu mbir mi gis ni direction générale bii ñu fi nekk hmm. non seulement suñu revendication yi nga xamante moom lañ koy jox nangu ko xool sax nangu wu tontu waaye dafa am yoo xamante ne tubaab da koy tuddee des points de droit point de droit yooyu hmm. eh, mooy li nga xamante ne code du travail daf ko xaatim wala ab convention moo xam muy convention Euh, collectif des banques et établissements bi nga xamante ne ñun ci lañu tënku mm-hmm. ak yeneen convention yu ci mel ni convention nationale euh, interprofessionnelle mi CCN yi boobu noonu nga xamante ne yàggul dara mm-hmm. dafa am ay poñ yu fa nekk te direction générale bu nangu woo ko respecté bi ci bi ci jiitu bi ci jiitu mm-hmm. mooy bi ci gën a kawe mooy ab décret présidentiel yëpp xam nañ ni IPM ni muy doxee mooy euh, yoon moo ko tëral te yoon boobu moo ne bépp jigéen léegi fi ñu fi ñu nii ak ni parité demee mhm. ni jigéen mënee ni góor mënee jël en charge jëkkëram ak i doomam noonu la jigéen ni jëkkëram mënee ni ni ni jigéen maam ni jëkkër mhm. mënee jël en charge doomam ak jabaram mhm. noonu la jigéen mënee jël en charge jëkkër ak i doomam léegi ñun am ay suñuy liggéeykat suñu collègue yi fa nekk ay jigéen lañ dugal ay lettre pour ñu jël en charge seeni jëkkër direction générale bañ bi inspecteur du travail yi ñëwee na leen lii décret présidentiel la yéen da ngeen ko war a respecté ndax lii la yoon wax hmm. bañ nangoo ne dañ ko respecté dañ dañoo wax ne facture yooyu jiitu ñoom duñ ko respecté duñ ko delloo. kon ci topp rek la ñuy. waaw ci topp te loolu est-ce que jéem ngeen euh, naxtaan waxtaan ak. ca ca lañ nekk. Hmm. wax nañ leen ba sonn ne leen facture yi dañ leen ko joxoon ngeen bañ. Hmm. yoon ñëw na facture yi da ngeen ko waroon a jël. kon dañoo waroon a delloo ñooñu. ba fii may waxee ma fii ñuy fii ñuy wax ak yow fexe nañ lu nekk waxtaan nañu ñoom it nanguwuñoo delloo loolu. Mm-hmm. am na ci beneen point. Mm-hmm. bu ñu tuddee heure supplémentaire. waaw mm-hmm. dafa am benn convention collective. des banques et établissements financiers bu ne. képp kuy liggéey ci ab banque nga def ay heures supplémentaires taux bañ la ko war a fayee ba ca gën a ndaw mooy cent quinze pour cent depuis 2013 parce que convention bi ñu ngi ko xaatim en 2012. 2013 ba 2020 ñu ñuy fay ci boo xamante ne du yoon cent dix pour cent ñu wax leen ko waxaat leen ko ci ay réunion ñu bañ na duñ ko fay waaye léegi ba yo ba yoon ñëwee na leen cent quinze lañ signé depuis deux mille treize loolu ngeen war a appliqué ñoom ñu bañ ne différentiel bi duñ ko delloo maanaam daal ñoo xamante ne dañ fee nekk lay yoon bind ñoom seen yoon seen yoon newu ci lu leen neex moom lañ moom la ñuy def seetuñ amuñ yërmande ca liggéeykat ya te ñëpp nangu nañ ne boo yilifee ay nit la ca mooy da nga war a am yërmande si ñoom ak yeneen i point yeneen point point yi bëri na ñu ñu tamit ca la ñuy tuddee euh, CF CFCE muy contribution forfaitaire à la charge de l'employeur yoon daf ne CFCE employeur moo ko war a fay comme ni ko yoon waxee employeur moo ko war a fay waaw ñoom am benn payeur boo xam ne ñu ngi ko tuddee prime de résultat ñoom ndekete lañ ñu ko mës a fay yëpp ca ca ca lañ ñu war a jox ñun. Mhm. fa la ñuy teq C CFCE boobu. waaw maanaam trois trois pour cent te loolu waruñu ko fa teq ñoom ñoo ko war a fay. maanaam su su suñuy poos ñun. Mhm. la ñuy dindi di ko di ko fayee te seen poos lañ ko fayee. Mhm. waaye léegi bañ demee ba jàpp leen ci loolu nag waaw yoon booy def loo warul def ba yoon jàpp la mais la nga doon def da nga koy delloo. xaalisu jàmbur boo koy jël yoon jàpp ne la ne yow yaa doon jël xaalisu jàmbur mais loolu nga doon jël buñ bëggee jàmm am mais da ngay delloo xaalis boobu Euh, après nag bi jël engagement dootuma ko defati. yéen seen direction boobu directeur bi kañ la fa nekk boobu ba tey. mu ngi fa depuis 2015. est ce que laataa moom mu fiy ñëw tamit hmm. problème yooyu amoon na. waaw waaw mais bu fa problème yooyu doon am sax. Hmm. te moom mu ñëw ñu gis problème yi mais li mu a def mooy. Hmm. problème même bu amee ci kër. dañuy taaj nit ñi. ko sooke. bu dee yaa tooñ ñana la nga jël te moom moo delloo pour pour jàmm a mën a mën a a doon jël xam naa ne man maa doon jël mhm. waaye waaw dem nañ ko ci yóbbu nañ ko ci suñu kilifa muy euh, direction générale du travail et de la sécurité sociale moo tax sax ñun ñu nekk nii si suñu droit war a mën a dem grève mhm. léegi nag am na ay kilifa yu mag yoo xamante ni jóg nañ di ci wax ñun ñoom la ñuy ñoom la ñuy déglu mhm. waaw ñoom la ñuy Euh, suñu suñu kilifa yi. Mhm. ñun jàpp nañ ne boo nekkee ak nit doxalul dëgg. Mhm. li jiitu mooy danga koy wax ne ko yow mi da ngaa war a doxal dëgg. mais gis nga yéen li nga xamante ne nii mooy ponk yi ngeen bëgg ñu daal koy defal. Mhm. depuis ñu euh, tey. mosu fa ba 2015 bi euh, moom mu ñëw ngeen bëgg loolu am fa est-ce que tamit. Ah. yi ma la yi ma la wax ni ay poñ la. te yoon moom amul mën naan la loi ne pas ne pas rétroactive. bu bu ab décret génnee mhm. ne léegi jigéen dafa war a jël en charge jëkkëram dootuñ xool la ca la weesu moom moo fi nekk mhm. moo ko moom moo ko war a appliquer doone rek amu fi woon mhm. te euh, yooyu ay poñ la rek suñ la waxee ñun ñuy liggéey ci biir banque bi ñun mënuñu xool suñu compte ah xam ñoom dañoo xëy xëy dindi ko yow mii boo amee compte sa yow boo ñëwee fekk si boo si kay gérer sa compte mun na la xool sa compte wax la lan moo ci ne waaye ñun ña fay liggéey dañoo xëy suba rek fatt fatt fatt suñuy ba tëj suñuy bët euh, mi ngi bëgg a yàgg tuuti war na mat at war na mën a at daal ñu xëy rek nañ ñun waratuñ dugg ku bëgg a consulter sa compte ñun ñu ne da nga war a dugg internet mhm. dem dugg CBA application CBA mobile pour xam lan moo xew sa compte mhm. lool loolu nag moom yéeme na mais loolu bi mu amee est-ce que waxtaan ngeen seen direction nañ bind nañ def nañ lu ñu war a def léegi ñu leen wax ñun ñoom lañ def mënuñ ca dellu dellu ginnaaw maanaam daal dañoo bëggul jàmm waaw maanaam ñoom dañoo dañoo bëggul jàmm te tey. lu mel nii par exemple tey euh, crédit. Mhm. ñëpp xam nañ la mooy liggéeyu banque. leble leble. Mhm. waaye ñun ñu fa nekk di liggéey ñu ne ñun kenn mënuñoo lebal wala buñ la naree lebal. buñ la buñ la buñ la buñ la naree lebal. Mhm. sa waaye danañ la doxloo doxloo doxloo dana yàgg yàgg boo xam ne boo amul patience tuuti rek da waaw yow tey mën nga am soxla bu gàtt. soxla bu gàtt nga am sa ku la ji ku la jege ko feebar nga dem si sa banque banque bi lebal la ab leb bu gàtt waaye ñun loolu tey demal ci demal ci direction bi nañ leen dama am soxla bu gàtt. te loolu yàgg ko dund. yàgg yàgg nañ ko dund waaye nag dafa gën a tar bi fa direction bii nii ñëwee nag soo xoolee coow li li muy bëri bëri yëpp ca la ñuy xeex. gën waa liggéey yëpp wala la ca ëpp. Mhm. loo xamante ne lu fi yoon teg la. Mhm. ñu ne leen yoon lii la wax def leen ko ñoom ñu ne di yoon wax. Mhm. ñoom duñ ko def. duñ ko def tey duñ ko def lu ñu ko def duñ ko def ëllëg lu CBAO ngay dugg mhm. ñëw nekk ab ab caissier lu ñu tuddee si ñoom chargé de compte mhm. mën nga fa def dix ans fukki at doo passé doo avancé sa salaire dara du ci yokk maanaam benn perspective de carrière amoo ko CBAO ni muy doxee mhm. jarul sax nit ñi di ci sori yow ku am compte CBAO wala tey yow nga nga nga nga ñu jox la ab chèque ab chèque CBAO nga dem dugg ci agence bi pour nga récupérer chèque bi di nga fa yendu ndax lan liggéeykat yi néew nañ clients yi bëri nañ liggéey bi métti na lu ñuy tuddee surcharge de euh, travail mm-hmm. loolu moo fa nekk loolu waral képp opération bu ndaw booy def sama yow boo fa duggee pour nga génn fa dafay métti te loolu métti na ci clients yi waaye wallaahi ñun ñu fay liggéeyee mm-hmm. ñun la gën a métti te loolu chaque jour ñu ngi koy jootu te ñii ñu ko seqal nanguwu ñoo déglu Euh, ki nga xamante ni moom moo leen jiite. Mhm. te depuis boobu nga xamante ni bu mu ñëwee situation yi dafay mel ne dafa gën a yokk. Mhm. est-ce que yaakaaroon ne ki ngeen jox njiit njiit gi daf ko attanul aussi. wala daf ko maîtriser wul wala lan moo untu loolu noonu yëpp. waaw loolu mën na nekk. Mm. loolu mën na nekk maintenant ñun liñ ci jàpp. Mhm. mooy yoon. ak ko mënti doon. dañoo war a sa loxo nga respecté yoon. ka fa jiitu dañoo ñëw yoon moo ne. Euh, ñun ñi nga xamante ne ñooy représentant personnel ñun ñuy délégué du personnel mm-hmm. weer bu jot même donte benn yoon lay doon mm-hmm. directeur bi war nañoo recevoir. yéen ko def. boo fa nekkee naa ko compter. mais li ñu wax ne ci weer bi war nañu recevoir benn yoon moom daal dafay maanaam fi mu ko tënk mooy du man ngeen war a gis dafay euh, délégué. intermédiaire waaw intermédiaire dem leen gis diw dem leen gis moom daal buur la mm-hmm. pour moom waru ñun waruñoo toog moom mu toog te yoon ab décret présidentiel moo ko tënk mu ne ñun weer bi war nañoo toog mu toog ñu saytu problème mu banque bi xam nga bu dee ab kër te borom kër gi kilifa gi nangu wut a toog ak waa kër ga wala ña jiite waa kër ga pour waxtaan ak ñoom gëm naa ne pour jàmm am ci kër gi dana jafe mais yow ginnaaw ñaxtu yi nga xamante ne def ngeen ko. ci mhm. presse bi yëpp dañu gis ne après yéen ñëpp dañu bind ci ci presse bi que ni Euh, ñun ñëpp euh, ñu fa nekk ànduñu ak yéen doxalin bi nga xamante ne nii doon ko doon ñu ngi fay sax cité sa tur que ni euh, ni ngeen doon manifester wu àndul woon ak li nga xamante ne mooy ak wala banque ni mu war a doxee. waaw xam nga ñun. Mm-hmm. nekkuñ ay journaliste mm-hmm. waaye dañuy gëstu. Mm-hmm. journaliste li ko tënk ñoom dañuy am na seen neuf principe ñu wax ne loolu mooy principe journaliste jaruma ci dëkk parce que bëgguma fi kenn ku fi leen mais la ca am. mooy que ne dañ ne journaliste. dara boo koy def da ko war a saytu. te yéen sax yéenay wax droit de réponse boo dégloo pàcc bi da ngay dem déglu pàcc bële. Eh, neutre neutre. Mhm. ñoo ngi bind ñëpp. Mhm. ñun délégué perso délégué du personnel amul kenn ku ñu seet si ne nan la mbir bi demee. Mhm. te la ca lalu xam nañ ko. témoin ka bind. xam nañ ko yàgg naa bind ci CBAO xam nañ ko. moo tax yooyu ñu wax noonu. ñun dañ leen koy dañ leen koy bàyyi. xam ne ñëpp xam nañ. mais la am ba am. bu fekkee bu fekkente ne waaw man la bu fekkente ne bu fekkente ne ñoom dañoo jàpp ne ñun ñun ni ñuy doxalee travailleur ànduñ ci. Hmm. mais kon lu tax kon ñu euh, dañ ko seqal. Hmm. kon lu tax kon ñoom coow li am bu dee ñun jàpp nañu ñun kasa la. Hmm. personnel bi ànduñu ak ñun. kon kay coow war coow kon kay coow warta am mais soo gisee ñoom ñu topp di dox fu ne. di génn ci presse bi. di wax mais xam nañ ne ñun personnel bi dafa ànd ak ñun te ñun lii ñu lii nii kayit yii ñu leen xaatim jox leen. du suñu kayit. personnel bi ñoo tënku joxuñu ñun ñu jël ko jëbal jébal jébal. mais am na foo xamante ne leerul. parce hmm. que da nga ñi nga xamante ne nii ñoo bind article yi am na ñu ci jublu nang wala dara ñoom bind nañu ne euh, yéen euh, li ngeen di def àndul ak euh, li nga xamante ne moom la yoon santaane ñun ñi fay liggéey àndul ñu ak yéen léegi yéen le fait que ngeen ne ah, xam na lañ ci lan lan lañ ci lan moo waral loolu. ma jox la benn tey xam nga tey témoin bind ne. Mhm. Papa Doudou Tunkara am merde tout le loolu noonu dafa waroon wax ne amer de certain. Mm-hmm. ndax tey mm-hmm. bu ñu amee ay kilifa. Mm-hmm. ñu nekk ci biir banque bi di def bii bukki bii njuur bii sàmba. personnel bi gisuñ seen bopp. prime euh, prime de résultat boobu ñuy fay. da gis kenn koo xamante ne ku am yow tey nga am salaire cent cinquante mille. ñu ne sa sa part solidarité mooy sa genn wàllu salaire yow nga am cinquante pour cent de ton de Eh, yow nga am salaire trois cent mille ñu ne sa sa part parce que CBAO am na ñu fa am salaire trois cent mille sa part sa part solidarité mooy cent cinquante mille mm-hmm. am salaire trois millions mm-hmm. ñu ne ko yow sa part solidarité moo sa ginnaaw moo sa genn wàllu salaire muy un million cinq cent ana solidarité ci cent cinquante mil ak un un million cinq cent ni ñuy doxalee mooy ñoom ñoo jël lépp ne bii bukk bi njur bi bi bi sàmba mm-hmm. léegi nag kooku noonu boo ko ñëwee bëgg ko den dénoncé loolu bëgg ko xañ bëgg ko yàqal effectivement dañ koy amer de moom bu dee ne ñoom dañoo jël di fay seen bopp ay bonus yoo xamante ne banque yi fay bonus yëpp ñëpp lañ koy fay personnel bi yëpp fay ay bonus ñoom ñu jël jël seen benn benn groupe ne ñoom nii lañ koy nii la banque bi doxee si ñoom liggéeykat bi day liggéey bay bëgg a dee yow travailleurs yi boo demee si si si agence agence yu gën a sori nit ñu guddi la ñuy génn si banque bi seen heure supplémentaire pour ñu fay leen ko problème la ñoom ñu téye mbir bi ñoom ñooy avancé ñoom ñooy am salaire yu rey yi ñoom ñooy am prime yu bëri yi mais ñooñu bu ñu déggee ab Pape Doudou Tunkara di di di jóg di kaas loolu mais bien entendu Pape Doudou Tunkara mi ngi leen di amerde mm. mais loolu ñoo ñu leen di amerde jubluwuñ ci ñun luñ ci jublu mooy xeex ak ak yelleefu travailleurs yi sama yow te ñoom ñoo ñu fal ñoom ñoo ñu yebal pour ñu def lii te wallahi mm. ñu demee ba toll fa parce que comme li ñu leen waxee suñ préavis de grève jeex na mm. waaye comme que dafa am ay kilifa yoo xamante ne ñoom ñoo ñu woo. Mm-hmm. ñu ci mel ni CNTS. Mm-hmm. dañuy suñuy kilifa lañ ñooy suñu centrale syndicale ak yeneen sax mm-hmm. am na yeneen kilifa yoo xamante ne bëgguñu leen fi tudd. mais comme que ñooñu dugg nañ ci dañ leen koy may ñu wallahi bu fekkente ne ñun personnel bi kenn àndut ak ñun et que bu ñu demee grève kenn duñu topp mais kon lan la ñu wax ak ñun. kon mais est-ce que ci yéen amul ñoo xamante ni tey euh, bu ñu sañoon ni Pape Tounkara di doxee doxee du ko doxee. waaw dëgg la mooy li ma la wax. ña nga xamante ne. Mm-hmm. ñoom dañ fi nekkal seen bopp nekkul luñ si personnalisé ba yow seen bopp la moom moom lañ moom lañ fi nekkal. Mm-hmm. mais ñu noonu mais dëgg la ñun ni ñuy doxalee ni collège des délégués di doxalee neexu leen. Mm-hmm. neexu leen parce que nit ki bu jëlee dara di laqatu di ko lekk. buggul mu siiw yow nga génn ci mbedd ma ne diw lii ngeen moom diw ma ngi koy lekk. mais yaa kay koy tooñ yaa euh, comme comme ni ko journaliste ni ko journaliste bindee yaa ngi koy amerde. waaye amerde boobu ñun jubluwuñ ci amerde xam nga lan lañ ci jublu hmm. xeex ak ak yelleefu travailleurs CBAO bii nga xamante ne ñu ngi leen di not hmm. te comme li ñu leen wax ñun xe suñu plateforme revendicative ñaari point la hmm. muy ouverture du capital ñu ñu maanaam ñu fexe ba liggéeykat yi dugg ci biir action CBAO dugg ci biir capitalu CBAO ñoom nee nañ loolu dafa diis mais buñ saytoo bu CBAO rek moom moo ko moo ko moo ko fi am ay banques yoo xamante ne Sibeyaaw mooy première banque du Sénégal ñooñu ñëpp am nañ ouverture de capital dugg nañ ci action dugg nañ dugg nañ ci capitalu ñoom seen banque ay banques yu mag. lu ah, parce que ñoom. Ah. dañoo dañoo dañoo maanaam dañoo teel a jóg. Mm-hmm. parce que ñenn ñi biñ koy am yàgg na dañoo teel a jóg xeex ko. Mm-hmm. waaw ñun ci loolu lañ nekk nii. est-ce que tamit yéen da ngeen bàyyi bu bëri. waaw mais xam nga xam nga délégation doo fi nekk ad vitam aeternam da nga fiy nekk ci benn diir. kon ci nekk ca la nga mën a ca ca ca la nga gis ne sa la ca jàmp loolu nga mën a xeex loolu ngay xeex. Hmm. boo demee ñeneen ñay ñëw lañ mën a xeex ñu xeex ko li ñu naan chaque génération a sa mission. Hmm. yow boo xeexee lii beneen bi ñun xëy na ñun ci lii moom lañ moom lañ tombé. Hmm. lii la ñuy xeex beneen point wu plateforme revendicative mooy relèvement du taux de prime. CBAO ma nga ca cinq pour cent hmm, banque yëpp yu mag yëpp ñii ñu ngi ci huit pour cent ñii ñu ngi ci dix pour cent CBAO moo leen ëpp fuuf suñu résultat ba ñuy def amul kenn ku ko ciy def jegewuñ ko sax hmm. léegi nag lu tax ñun loolu ñun ñun loolu ñun waruñ ko am yeneen banque yi fi nekk war nañ ko am mais liggéeykat bu nekkee fi muy liggéey nekk ci ay jafe-jafe am na droit mu yóbbu euh, ki nga xamante ni mooy direction wala ñi leen jiite justice. léegi lu tax loolu defu comme li ñu la wax sànq xam nga loolu. Mm-hmm. mbir mi dafa am yoon. Mm-hmm. boo xëy nga dem ci yoon. Mm-hmm. Sénégal dafa am lu muy doxee. Euh, ñun dañoo am inspection du travail buy saytu droit ak ak liggéeykat. am direction générale du travail et de la sécurité sociale nga xam ne moo yilif inspecteur travail yi nekk Sénégal yëpp. foofu yëpp dem nañ fa. ba actuellement nii moo tax ñu institution bu bu mel ni sax au conseil ñëw na waxtaan ak ñun mais lañ gis mooy man li ma li ma d'accordul mooy boo nekkee institution boo xamante ne yow sa rôle mooy d'abord euh, fexe ba sauvegarder li nga xamante ne mooy yoon yi nga xamante ne mooy code du travail yi nga xamante mooy ay décret yi nga xamante mooy convention convention yoo xamante ne mi ngi boo gisee ab ab institution bu mel ni CBAO mm-hmm. nekk première banque du Sénégal bañ a loolu lan nga war a njëkk a def mooy balaa dara xew nga nga nga wañ seen loxo ñu respecté yooyu. te mooy poñ yii ma la wax non ñoom bëgg mooy ñu fexe ñu waxtaan pour ñu mm-hmm. turbe jàmm. mais xam nga jàmm soo ko bëggee da ngay lan lan moo sooxe mais est-ce que waxtaan euh, pour ngeen trouver jàmm laat bu bu ngeen wooyee di waxtaan waxtaan rek est-ce que dina saafarawu est-ce que jarul ton euh, comme dem ngeen foofu yëpp fi ngeen war a dem. bu ngeen si gisul saafara est-ce que moo ngeen yóbbu affaire bi ci yoon. bu soobee yàlla li ma la wax nii. Mhm. comme que suñuy suñu kilifa dañ ci dañ cee dugg. Mhm. bu ñu ñaanee sañu sañu ñoo bañ dinañ leen ko may waaye bu antuwul. Mhm. danañ dem lépp lu ñu yoon may. dañ koy def. mooy suñu préavis de grève bii jeex. pare nañ pour décréter. pour pour dem pour dem grève te lii ma lay wax nii assemblée générale moo ko décidé. te assemblée générale boobu bañ cay décider lañ bëggoon def sax mooy dem. Mhm. mais bi bi ñu kilifa yi ñaanee lañ ne nañ leen may. Mhm. mais non seulement pare nañ pour dem grève pare nañ également pour yóbbu banque bi ci yoon. parce que mhm. tey yow lii nga xamante lu mel ni suñuy heure supplémentaire yow yaa ko doon ko doon jël waruloo ko jël. wala li fay waroo ñu ko woon fay ni nee nga ñu ko woon fay ñu jox la yoon ne am delloo ko nga bañ ne doo ko delloo beneen poñ. beneen poñ bi la dañoo jekki dañoo jékki-jékki woon. Euh, képp kuy liggéey ci kees. boo mm. amee manquant dañu koy dagg sa biir salaire. te code du travail dafa bannir lu ñuy tuddee la sanction pécuniaire maanaam nit bu defee manquant de caisse waroo waroo ko dindi ci salaire am parce que liggéey ci kees moom manquant de caisse ñoo ànd. Mm. mënoo di liggéey ci caisse te doo am excédent wala wala nga am nga am manquant. Mm. ñu jël ab diir ku def manquant dañ la koy dagg. biñ leen yóbbee ci yoon yoon na leen arrêté leen loolu da ngeen delloo xaalis bi arrêté nañ ko de waaye ko nit ko dëgg yàlla bu toogee ne man du ma respecté yoon sama yoon ci yoon mais kilifa yi dëkk ba ñoom ñoo ko war a wañ loxo mais waruñoo bàyyi rek bàyyi leen ñoom ñu nekk fi di not liggéeykat yi di def li leen neex hmm. waaw te moo tax ñun comme ni ñu la ko waxee ñun pare nañ hmm. pare nañ képp kuy kilifa hmm. boo ñu wooyee ñu wax la lan mooy problème mu CBAO te eh, ñi ñu ko seqal dañ ko seqal ñoo xamante ne li ñuy naqari ma dañ ñoo deful nawle benn politique bu mel ni mais da ngeen gis ne direction bi directeur bi da dañoo xeeb bu baax. Hmm. ma jox exemple lu ci mel ni lu ñu tuddee guichet unique. Hmm. xam naa ne yéen a koy dégg. Hmm. guichet unique mooy lan mooy yow boo ñëwee ubbi sa compte ci bépp ci benn agence. fu la neex ci Dakar fu la neex ci Sénégal boo fa yóbbee chèque wala ma dañ lay fay. bu dee compte compte d'épargne nga am foo dem guichet CBA boo dem fii ba Kidira fii ba Sabadola boo demee boo taxawee dañ lay fay. banque am ay banque yoo xamante ne loolu lañ naayee woon CBAO gis CBAO muy dox ñoom ñu bëgg a topp ci ginnaaw CBAO ñu jël loolu def ko. Mm. ba ca banque yu ndaw ndawaan sax ay mutuelle yi sax commencé ko def. CBAO mm. dem ba mu ko rek mu ne loolu daf koy lu ñu tuddee suppression guichet unique. Mm-hmm. ñun ñi nga xamante ne ñoom yow yaa ñoo ñu tuddee des partenaires sociaux. Mm-hmm. laajuñ ñu de laajuñ ñu boolewuñ si mais ñun ñoo leen interpellé ne leen lii jàpp nañ ne baaxul arrangé wul banque mm-hmm. ndax lii boo ko defee. clients yi danañ ñu ngi commencé daw lii ma la wax ne mu am. clients yaa ngi daw CBAO te loolu ñun client yooyu client yi ñoo ñu fi ñoom ñoom ñoo ñu fi ba. bu client amatul sa yow ñun lan lan moo ñuy fay. moo tax ñun ñu bëgg di leen ñaan suppression guichet unique boobu du politique bu baax c'est une politique impopulaire nañ ko arrêté. Mm-hmm. nañ ko arrêté parce que xel moo nanguwul du ay affaire sax ay technique banque wala am xam-xam mais xel moo nanguwul. Mm-hmm. yow nga ñëw sa yow Dakar ubbi sa compte. Mm-hmm. defa sa xaalis. dem Ziguinchor dafa def mission. bëgg a bëgg bëgg a bëgg a récupérer ab chèque bu romb deux cent deux cent mille hmm. ah par exemple nga am sa chèque un million ñu ne la jëlaatal oto nga delluwaat ba Dakar. Hmm. fayeeku sa un million pour jaar oto encore ñëwaat Ziguinchor pour pour li ngay def. ci xeeb boobu sax ci laay jeexalee ndax ñun mooy signaler temps bi mu ngi waaj a mhm. ginnaaw li nga xamante ne nii amoon na fa euh, li muy seen euh, conférence de presse bi ak seen grève yi depuis boobu ba tey est-ce que seen directeur réagir na maanaam mu woo leen waxtaan wala ngeen communiqué wala mu xool naka la ñuy trouver saafara ci ca tolof tolof yooyu. non seulement woowuñ nit ñi waxtaan. Mhm. mais xam nga lan lan lañ nekk di def. Mhm. ñoo nekk di wër ci biir agence ci biir agence yi. ñu xool ne kan moo kan mooy takk brassard rouge. Mm-hmm. ku takk brassard rouge ñu jëm la alseré jëm la menacé. wala ñu xool mm-hmm. délégué bu ñu wootee assemblée générale ñan ñoo fay dem bu ñu wootee rassemblement te euh, balaa may daaneel également di fàttali ne. Mm-hmm. ñun ñu ngi bëgg a organiser waat beneen beneen rassemblement le samedi 26. rassemblement boobu dañ koy def signal. di wane ne buñ ko rombee. ah boo su boobaa nag duñ ne kenn duñu ñaan ñu may ndax ñi nga xamante ne ñooy suñu ñooy suñ ñooy suñu mandat mhm. actuellement li ñuy wax mooy lii ñuy wut buñ ko amul ñii banque buñ nanguwul respecté yoon ñun pare nañ pare nañ problème grève mhm. donc liñ bëgg mooy mhm. nañ bàyyi yooyu noonu ñuy def problème mu kër biir kër kilifa yi ñoo kay réglé nañ woon nit ñi ñu toog waxtaan cette problème yi lan la ñu respecté yoon waaye mënoo nekk ci biir kër yow non seulement woo waxtaan mais yaa ngi xooqatal nit ñi ku dem ci assemblée générale nga jéem xam kan la jéem a rëq ndigam jéem ko menacé bu nangul nga jéem ko corrompre loolu baaxul yoon daf koy tere donc ñun ay liggéeykat lañ liggéeykat yoo xamante ne CBAO bu ñu naree taxé daay mouton de panurge c'est parce que kaka wax il est de mauvaise foi mouton de ay mouton de panurge mënuñ def résultat wu trente milliards CBAO est la première banque au Sénégal ay mouton panurge mënuñ nekk la première banque au Sénégal nekk presque quatrième suma juumul au niveau de l'UEMOA yooyu ay mouton de partnership mënuñ ko mënuñ mënuñ ko ne donc ñu ngi ñu ngi ñaan sa moromu journaliste yi mm-hmm. ñun ubbil nañ waaw nañ mm-hmm. suñu téléphone ñëpp mm-hmm. suñu téléphone ñëpp xam nañ ko CBAO siège fam nekk ñëpp xam nañ ko képp kuy bind bala ngaa bind bu dee suñ ñun nga war a bind woo ñu nga laaj ñu ka la wax lam bind nga bind ko ñun lañ la wax nga bind ko waaye daal parce que am na fu ñu jaar ak yow rek nga nga xëy nga xëy suba ne wàng ci journée yi di tudd turu jàmbur loolu dafa ñaaw loolu Sénégal xaju fi mm-hmm. ñun nag dañoo am ay ay kilifa. Mm-hmm. commencé woon nañ sax ba suñu plainte bëgg a bëgg waaw mais comme que ay kilifa waaw dañoo am ay mm-hmm. kilifa ñooñu ñooñu ñaan ne buñ leen topp. et ñun nañ communiqué nañ wax ak Sénégal ñu xam ne ñooñu noonu ñuy wax ay wax yoo xamante ne la bu dëgg. te amul fenn ña koy bind wallahi waxuñ dëgg képp kuy bind ne ñun mm. ay ay ay ay monsieur toujours plus lañ mais foog ñu nekk ay monsieur toujours plus mm. boo ko seqee ak ay monsieur toujours moins mm-hmm. bu dee da ko seq ñun dañ ko seq ak ñoo xamante ne ce sont des toujours moins maanaam suñu acquis yañ am chaque année dañuy rocc benn di rocc benn et que ña nga xamante ne ay expatriés lañ jógee Maroc ñun ñun maanaam nekkuñ fi ay racistes Hmm. wala ay ay ay dara. dañ leen mais mais dañoo mais mais buñ nee buñ nee buñ gisee ne ñii ñu jógee Maroc ñu ñëw fi ñu considéré leen comme ay expatriés. boobu lañ leen jox. maanaam hmm. statut expatrié boobu moom moom lañ leen jox ñu nekk fi ñii ëpp fi dix ans. Hmm. am nañ fi ñoo xamante bi ñu fi nekk léegi ëpp na fukki at. te wax dëgg fa yàlla ñun suñu jàng soriwul waaye nag ca lañ ca xam as néew te jàngee ko université. mooy que ne dans le contrat d' expatrié d' expatriation. mais le CDI est carrément exclu maanaam contrat à durée indéterminée yow mënoo nekk expatrié bëgg am CDI. expatriation la ko tënk mooy CDD contrat à durée déterminée te contrat à durée déterminée ñun lañ ca la ca tubaab ba xam nañ ko. mooy la ca ba ca gën a gudd trois ans la renouvelable une fois léegi ñoom ñu bëgg fa nekk ba ilaa yow mu diin kon loolu nag buñ ko gisee ñun foog ñu kaas ko ndax loolu mooy suñu rôle ay délégué lañ. duñ nekkuñ lanante banque ba. ba bañ nekkee liggéeykat ay délégué du personnel suñu rôle mooy kaas li nga xamante ne du yoon. jërëjëf ñu ngi lay remercier bu baax di leen jaajëfal yéen yéen waa TMS. Euh, jërë ngeen jëf yéen ñu doon seetaan euh, ci la TMS TV seen émission bi invité de la rédaction ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon ak yeneen i invité